sama digganteeg Pape Mayel sax ñoo ko ñoo ñoo ko yàq. Mhm. Kayre mii ak Karim Gadiaga liñ ma wax ni Abbas liñ wax ci Abbas Ndoye ak mhm. Pape Mayel. kon yow sa digganteeg Pape Mayel dafa yàqu nii. ñoom la waaw ñoom ñoo ne ma. Mhm. dañoo topp Alioune Sarr ne ma Alioune Sarr. Pape daf ko jël dafa jël doomam ci aéroport bi. di ko fay nangam. kii bi toogoon léegi Pape Mayel laa ko tudde mm-hmm. wax ci di ma wax ci Pape Mayel ak Abbas Ndoye loo xamante bu ma ko ŋaangoon tey. Mm-hmm. Abbas Ndoye ak Pape Mayel dañ leen tëj. mais la moo tax yow ak Pape Mayel waxtaanu leen ak Abbas. non xam nga c'est parce que boobu jour boobu. Mm-hmm. ñoom dañ ne man moo may jox xaalis. may attaque groupe bi. ci la oo Pape Mayel ko loolu ngay wax nag bu fekkee ni li yàlla boole ma tudd la doom moo tax nga di ko wax. bëggatuma ko dégg quoi mm-hmm. na mujj tey na njëkk tey mm-hmm. man du ma sa escroc boo xam da nga may jox xaalis mm-hmm. may dem di attaquer nit loolu sama ngor sax mayuma ko Pape Mayel ne waxu ko ma toogaat gars yi waat waataat ne ñoom Pape Mayel leen ko wax te loolu am na ñoo fekk Pape Mayel mu wax leen ko mais après nag laa oo Pape Mayel message lancé ko na ko banaa la àdduna ak àllaaxira waaw sama diggante yow daal kon foog na seen diggante yàqu. waaw moo tax déggatuma Pape Mayel du ma ko tudd fenn ndax xam nga c'est parce que man déggoo la bu yowoon nga yore milliard. Hmm. Hmm. boo ma respecté wul tey Pape Maguette boo lekkoon gileem ma lekk ginaar wala pitax. Hmm. buñ taxawee kan lañ koy kenn kan lañ koy. duñ si xam dara nit nag loolu moo tax nit war a gore. du may ànd ak nit rek. yor na xaalis directeur aéroport rek. lu ma wax rek dama koy sëfoo pour la may jox. déedéet man damay sàmm sama dignité. te sama njaboot gii. ñaan naa yàlla lu ma leen di jox. mu lew mu lew. Pape Maguette du ma genre du ma genre mbëri yi de mm. parce que Serigne Fall loo dégg ci man mm. leneen ñëwal ba ci man nga laaj ma du ma fen sama jabar a ngi nii laaj ko mm. maître El Hadj Diouf ku ma xam Pape Mayel nga ma xamee ak maître maître ko téeni te ba ma koy tuddee Pape Mayel boobu Pape Mayel nekkul sa xaaj ku ne woon Pape Mayel dina nekk directeur aéroport sax nga ni déedéet bi ma ko tuddee dafa doon jooy ne ma maître mi nga tiim sama tiim sa doom yi maître moo nga bàyyi ko ñëw ma gor li ma defal li ma defal mbër defaluma lu xaaj ba. Mm-hmm. te tuddee nga ma doom ma ne ko Pape si jikko moo rafet. Mm-hmm. mais boobu nekkagul directeur aéroport moom it. bi mu nekkee directeur aéroport nag ci la commencé changé moom it. mu mm-hmm. waaw ah, Pape Maye su ma ko wooyee du ma ko jot. su ma demee këram ñu ne ma damaa war a jël audience. déet waay waaw te daanaa dugg këram. 9h ba 10h. non c'est lépp la woon. waaw xam nga ku ko xam ci télé dafa bëri ci jamono bi. mais man yàlla wàccu ma. man damaa doylu. pap sama carrière li liñ ci dégg lépp ak lim sooxe. Mm-hmm. mosoo dégg ne xaadim ma ngay tàllal loxo ci télé bi di yalwaan. Mm-hmm. te métti woon na trop. Mm-hmm. dama daan dem ba dépasse sax du ma ko am. mais kenn mosu ko xam mais tey maa ngi sant yàlla. su fekkoon nag damaa naan petit. bu robinet bi ubbee rek mu rus. dignité boobu nag laay ànd ak ñoom Moustapha Guèye ñii. ak ñoom tant que ñu ngi ànd ci dëgg. ma ànd ak ñoom mais li ñuy def nii du dëgg. ànduñu ci dëgg dañuy naxaate. waaw instant yaa ngi aéroport Diass. Pape Mayel moo lay fa yóbbu wala. non jamais. lan moo la dugal aéroport Diass sama aéroport hmm. turki yi ñoo ko yor. Hmm. waaw turki yi di ci remercier président. Hmm. man ki may liggéeyal. ki ma war a sant. Mbaye Sarr bu Sénégal Tour. dinaa ko wax ba réew mi yëpp xam ko. Mbaye Sarr moo ma moo ma lebal xaalis. ma ubbi société mu signé ak man contrat jël ma aéroport. Ah, société de sécurité. sécurité waaw yaa ko moomal sa bopp a ko moomal sa bopp. kon kañ yow xaadim man lay fay di ko ñaanal yàlla rek. ci Me El Hadji la ko jaare di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal liggéey bii ñu seq yàlla ci gis boppam te man maa ngi ciy gis sama bopp yàlla yàlla may ko ay oto yu oto taalibee ngi noonu ko goree ngi noonu mais man ñi ma waroon a jàppale yëpp buñ ma waroon buñ ma waruloon kon tey di nga weesu fii dinaa mais li ma jàppoon ci ñu Pape Mayel moo ma sa taxaw ni ma avant muy falu ne ma du ma la fàtte adduna du la fàtte àllaaxira barke sëñ ma Samba Mbàkke deux heures ma matin la ma daan oo fii sama kër sama jabar a ngi nii ma ni ko mu ne ma ñaanal ma ma am poste bu baax ma ko ko billaahi wallaahi mi ngi may dégg mm-hmm. ak ma ni ko mm-hmm. bis bu lay fal mm-hmm. ñëpp a koy dégg revue de presse la ñu koy def Sénégal gépp dégg ko bi ñu koy fal ma ki daaw kii rek décret bi génn Lamine Samb revue de presse ko tey Lamine Samb moom ah defal na ko lu ne de mais man day wax dëgg yàlla Pape Mayel de pour man àdduna fàttale ma fi xaw ma nag àllaaxira uh-huh. mais àdduna